comme fi un élève qui trahit son maître il a perdu ses valeurs tay ci bir li nga xamanteni moy déballage bi nga xamanteni ni na Sénégalais yépp ci 25 cinq milliards yoyu yo xamanteni tay moy catastrophe bo xamanteni liko li ko imminent maanaam mooy régime sortant bi dafa am ben vidéo bo xamanteni ni régie su dee vidéo bi disponible na ngeen jox ñu ko ñu xol ci ñom ñaar tay kan mo ci war indi li nga xamanteni moy mooy firnde boo xamante ni tey mën na firndeel moom li muy wax ndax tay koku jàpp mom moy moom mooy la. fii ci ville nouvelle ville de Diamniadio bi nga xam ne moo wane vision wu président Macky Sall bi mu am ci Sénégal euh, ndax ba mu gisee ne Dakar xat na euh, Dakar pour mu noyyi euh, day jafe mu créer une nouvelle ville ñu gis toutes les infrastructures lii aussi tënk na vision bi président am ville u Diamniadio xam nañ ne am na plusieurs réalisations nañu koy fàttali fonctionnaires yi nañu newe woon Dakar ci building bi demoon na it ba mënatuloon a nekk mu créer les nouvelles sphères ministérielles ñoom ñëpp ñu ne fi ñu xam le stade bu bees bi dernière génération euh, ñu tuddee ko président Abdoulaye Wade euh, muy stade boo xam ne daanaka amul fenn ci ci ci Afrique train express régional bi xam ngeen ko mooy desservir toute la banlieue dana ñëw ba fii continuer ba aéroport incha allah loolu la mu tënk président dafa am vision té défé na né li Sénégal soxla woon na lu yagga yagga yagga a ci bir aussi euh, nouvelle ville bi ñew nañu fi euh, ci université Amadou euh, Mokhtar Mbow momit ñu ngi koy euh, nuyu diko ñaanal mu yàgg fi te wër li ñu mëna japp moy digënté 1960 ak 2012 président danaka multiplier na par trois li nga xamné moy infrastructure euh, universitaires Nous avons créé fi ci bi euh, université UBS comme université du sint Saloum UVS euh, avec 60 lu étudiants boy set UVS tay université virtuelle du Sénégal moy université bi gëna reuy Sénégal université aussi du Sénégal oriental ñu ngi koy ñu ngi koy espace numérique ouvert

appliquer nako aussi fi nga xamné euh moy secteur enseignement supérieur parce que limu gëm moy ne dëkk xel ak compétence ak expertise moko koy yore moo koy kon lolu aussi wané nako ko euh, ci vision bi nga xamné euh mom la am bolé na ci nak aussi institut euh, supérieur d'enseignement euh, professionnel dafa am solo ndax dëkk aussi foog xaralé yi ñu mën diko développer science bi ñu mën diko développer ba am na huit li ISEP yoo xam ñu ngi dox xale yi dinañ ci mën a jàng yoo xam ci affaire ingénieur la ci affaire science ak yu ni euh, loolu it euh, na bu a euh, vision bi nga xam président daf fi fekk ay centre université ñoo vidéo bi ki nga xamante mon moo fi newoon président de la république di Macky Sall je crois que j'ai même adressé à Samba yow mi nga xamante à yaa alliance pour la république Tay, suñ ko comparer ak li nga xamante ni mooy sortie bi leaderu Pastef def léegi légui ci accusation Yo xamante ni ay catastrophe Yo yoo Macky Sall mi fi jógee bàyyi ko ci mi tey kii wax cadre yi mi en 2023 ci 2023 bu mu génnee kàddu yi ci diggante un an bi naka la Macky Sall a defee lii ba pare kooku dem tey en moins de six mois mu émané leen ay catastrophe vu que FMI juin lañ fi jógee lépp lu ñu leen bàyyi loon maanaam mooy benn rapport boo xamante ni Sénégal mi ngi ci stabilité lépp baax na donc lépp mi ngi commencé suux maanaam de juin en septembre alors que boobu Macky Sall nekku fi tey lii nga xamante ni Mimi Touré wax na ko te tey sa Mimi Touré la mooy haut représentant auprès du président ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye Faye ni may wax ak yow mi ngi noonu ci wetam foofu ca Nations Unies. waaw ben xam nga man vraiment Mimi Touré man du may bëgg di wax ci moom sax. parce que non mais est-ce que vidéo bi contredire tey li li. waaw moom lay lay wax mais loolu vidéo bi non seulement dafa contredire li ñom wa gouvernement bi luñ doon wax mais aussi euh, dafa contredire pratique politique politicienne euh, té ensuite man man dama wax né Abdourahmane Sarr Magui Oulimata Sarr mhm. ministre la coopération des microfinances. kooku nakalay, nakalay naka nonu sarak binga sa rakk bi nga la biologique la nit di tok di wax ne fenkat la lim doon chef li doon def baaxul yow nga tok di encaisser di endosser ça me fait très mal té képp ku dégg xam xam nga wa FMI damay wax ne ñun on peut faire de la politique mm-hmm. nous pouvons faire de la politique nous pouvons faire des des des parti faire des politiques politiciennes mm-hmm. mais FMI membre politique FMI bu mu fi ñëwee évaluer yaakaar naa ci waruma xarañce ak wa am matériel ay paramètres matériel paramètres yoo xamante ne képp lépp loo xamante ne faux signature la wala foo bon la wala loo xamante ne am na benn sub dose de subjectivité boo xamante ne détournement am na ci FMI dinañ ko xam te dinañ ko wax parce que ñoom dara ñoru leen finance publique moo leen ñor ñooñu ñoo ñëw xaalis bi mu wax ne xaalis bi dafa réer ay moom nga lañ fi wax waxoon financement lañ waxoon ñun lañ mm-hmm. am kay yow non Ousmane Sonko na arrêté na arrêté quoi parce que vraiment on en a marre gis nga euh, Cheikh Diba mm-hmm. dama waxoon ne su honnêtoon mm-hmm. ak Abdourahmane Sarr ñoom it dans les minutes qui suivent. parce que pourquoi cher Diba amul lenn lu wax ci finance. Mhm. fin Sénégal te xamu ci dara. lu foo lu foowul luñ dugal luñ dugalul lépp kon nga xam donc moom fekkee ne loolu xamoon na ko non kon il ne faisait pas ce qu'il devait faire en tant que travailleur honnête. d'accord te lolo? dañ ko ci wara, par rapport à 25 millions non 25 milliards 25 milliards les fonds spéciaux du trésor sont programmés en recettes mhm. et en dépenses à 225,5 milliards de nos francs CFA en 2024 mhm. soit une hausse de 52, de 55,2% en valeur relative. Ils sont constitués principalement par des comptes d'affection spéciales pour 195,0 milliards de francs répartis, notamment entre les fonds intergénérationnels, le fonds de stabilisation et les fonds de retraite pour des montants respectifs de 7,5 milliards, milliards. 2 milliards, 168,5 milliards, may laccé may laccé donc comme Ahmed Ahmed Edar nim koy wax may laccé donc nak mhm. Ousmane Sonko somme yum wax né 25 milliards da fa guéné mhm. fan fan lañ jaar bu am ko d'abord buñ ko amé fum duggu bu mu duggé fum guéné ak kanaka ñoko guéné ci biir loolu yokkaat na ci nee na 300 milliards aussi génnee ngeen ko amul benn traçabilité <laughs> non. Légui, hein. Non, je pense qu'Ousmane Sonko, il prend les Sénégalais comme des moutons. Il vient de parler 300 il milliards nous prend comme des moutons de responsabilité. Non, il, il, prend les Sénégalais comme des moutons, comme des demeurés, comme des, des gens, des esservelés, comme des ignorants xamuñ dara dara dara dara ci économie. mais est-ce que tey jàppeewul euh, organisme internationaux yi ay tey Sénégal naka la dépasser 300 milliards sans traçabilité tey que Sénégal di wut ay financement ci FMI ak Banque mondiale alors que ñooñu duñu tracer loolu. non non seulement il il dafa jàppe ñu comme un idiot. si mais nous aussi daf ñu jàppe comme un idiot <laughs> yoo xamante ne ci idiot si rek la Et dox te ñun amuñ dose de mentalité benn grain d'intelligence pour maintenir ne nañ le vrai du faux c'est extrêmement gravissime ce qu'il wax nii dina parce que si tu veux deri si vous tu veux Sénégal tropal Sénégal c'est Sénégal une incapacité c'est un projet xam ne yep parce que lendemain Sénégal am xamun fum projet bi orientation amul amul amul organisation mon programme amul lenn loo xamante ne mën ko teg sur la table pour que Bayeri pour que les institutions internationales euh, internationales internationales jàppale leen ci financement yooyu nak, mom lay anticiper pour échec bi nga xam de moom def na déjà tey day Sénégal d'ici les cinq ans di ñëw moom lay anticiper waaye nag la seule chose pour parer à ça c'est les élections législatives d'accord euh...